بسم الله الرحمن الرحيم شكر ساكرين في البشر سائرين على سياد شيخ القديم في البحر بسم الله الباخ القديم لمصاب عثمان تبع لي ما رحمن قد قال مصاب خادم الخديم لمن أوى تقدم الخديم يا زائلي أنصب سبا بتحسيم يوم خروج شيخنا الخديم من داره تدعى بك باري باسم خالق البرايا باري خراوات يوم السبت سامن عصر لخدمة المختار في سهر سفر taarix ba mooy junneek ñetti téeméer ak fukki at ak ñett lim bile woor su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xool yi dellu seeti ku réere mbir day laaji xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu amul gumbaay jàccaar laa ngi teegeen lebedam man ku xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na topp waayam mbaal ko dal bu mu ko xul nan jéema topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw saytaane xami ndugalam te jéema roy roy ru rijaalullaahi te fi ma axtaarul muxtaaru لا في الذي نفوسكم تختاروا حجاكم من الإله نور بامبا جاكو كروا لسند نور بامبا جارك نون يلا جهرا في البحر والبحر وانا الدهرا كيتاني بانيخك بكنا الدنيا كلين فتل daaneel nga noon yu bon ya bamba jaar ñoom jaadu nafsi boobe sëriñ sankonan fi absi xataltu fil bëri la wax saytaana xëb xayral wara awtaana noon baal bu angaase ba xeex ca geer ba niroowul siwil keroog payoor ba waman yu aajir fisabilillahi mboot maa ko yóbbu foofa doon na laay déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ni seex bàmbaareel demam ga tarix ba ama jey sa sin mooy at ma moo di lelab sëriñ ba si yurum mbég ma nee na la yàlla defaloon kalima fi daara hi defal ko ibrahima بيالا بوربا فرات التبسكي أكم غريب معينا كقايم بكي بخدمة القديم للمخدوم بالباري فارلو لين إلى تحسيمي لدام وسر تمبوتي يوني جيج لاي بقوا ينجين خمي بامباي جيج boko xamul yeral jasaaw sakor jawab abdullahi lolu mo wor ne dogan kon ak demam gi walaf Nasrani, te kon billahi ñepp dem niraani ngir baaba doomi soxna yaa ngi kanu di dagu seefi wuri fa nasaraanu ñoo jaxaso kangam ak nasaraani ñii defi xaali ñii di ànd naari yi doomi soxna dal sampi daara te donga ya jigéen ñi mel ne saara cireema ànd ak saara yendu caawo daw jaxasoo bambara fetu caawo sëriñ si ànd wori faf di daane ñelee tox di foon doxaani ñelee di wañlu bandaani ñelee di ñëley waajaani góor ak jigéen ña jaxasoo di caaxaan lamb yaa sabari yépp jaaxaan kenn amatul xasdu li waj ilaahi kaa nga ki foore faaf di ñaan ilaahi lislaam di jooy yi kéet ba génn gàddaay ci sow jant tépp mel ne làmbaay Seex Bamba dal ñaan ci barkeb jiili ni yàlla may safi kullu jiili may xaadimu rasuuli fi soodaani may rammu xarnu bi ani bur yàlla dal di siñe jox yónneen ba mu siñe gaaya dal jiital Bamba lisaanu al dali waxanteeg bamba ca saar mu teeñu yan ba bambaani may na ma dalub lislaami saf ma joor leen ma dinaa ko jaamu yàlla la nastaxlisu teg li nafsi ma gën yay ci bamba doon na absi keroog la ñaan buur yàlla yooni géej ga ngir nga liggéeyal may géej ngir booba war yaa ngi koy xëccoog sëriñ ak tubaab yi na commerce àdduna alaaxira faf di ko géroo ku ni maa koy tana sama goro mbaxaali moom jaxate naa koy kan jengal te jublu bunti buur yi seex bamba naa ko asbiyal ilaahu dahran wala ilaha illallahu man yàlla doy na ma te doy loo naa ko ma indakum yan faddu jàngir naa ko bilaayi man alal du tax ma jànge jàngal ma saar oot nde kon doo jàngi bilaahi تعالى خنا يو خلمو لا تركنو إلى الذين سلموا خالو لي إركان موي جواب خالي بامبا كتون توان وانت خالي كروك لا بامبا جين بنا بلاهي تايفا سنا أدين جبل الله أقبلتي دنيا إلي خبلو وبيتها فسال أني قبلو wa ba'du an ya adbarat amin laha li kauniha daru sulam wa wa inni aqbalatun lil wa khamani dama ka ba'da sawju ma gor mulak nyan khata bitul lasi ladana رعى بما لدى الله لهم دترى ويل لمن إلى نسار مالا لكي ينال مغلة أو مالا هو ولي دار النصارى خادم آدم خاد أدا أنسارا إن المؤاجرين والأنصار لم يعبدوا يهود والنصارى keroog laa bamba teeñu fab yenam ba wettali ko yàlla ba yomba ngir bëggaram mu jamono yoneen ba tuubaali man bala xamoo di yen ba yen ba nu yenoon xutbu yaag ya ko moo ko fab gaaya da ngeen di te tawatul balaaya suratul lahwaani la am ci laaya sëriñ si naaxis lañu bambaay kaamil mbari yépp bambaay kaabal man sàkka fi saalika fal yu jarribi wa man yu jarribi baabi taqarubi hijaayante nak yàlla te dootul xacce rijaali seere nañ ko mosula sa loolo taxoon cheikh bamba naa yaa xaw mi sababu xaybati yaaram mu réew mi sababu xaybati ya anna laaha araadan ana lamin ujaaha waan akoonu shaafi'an li xawmi waan akoonu xaadiman fi dawmi ca moomaat la bamba sanc baari biis ni xaalixil baraaya baari fekkoon naa taalubeem ya gor caweela mu romb gor baa góor gu yàlla yeela ba mu amee juróomi weer fa baari di dugi xalwata di ñaan lil baari saytaane dem ruuxale koog nasaraani naa jaar lay fexe fi soodaani tubaaba yónnee fay wisillu kër ga di seet bala doom gis fa ak warga ca moma at la yàlla xar seen xol ya def ci ragal seex bamba soppi xel ya ca moma at la yalla xir borom dar mu wa serin tuba mu jileen dar bamba mam maam ceerno ibra fati mu ji ndar in ro gaynde ak batin mu boole koog waaju nan demba kebe tubaab ba naa leen bambalaay fa bi ebe ba mu demee ndar noon ba yer leetar ba naa leen garab wa mooy tiitar ba dinaa folet bangaas wa deji ba sanni cal tasaare tool ba maam abduloo dem kalaami koog boroom ndar ak yibra faati saar ñu dëkke dar dar jortoo kolam ni julbe buurum ñooro mbaa seexi malik ba imaamu ñooro mbaa seexi abdul xaadir tijaani ma xari samba saajo fil jiraani ca mooma at la teeñ te ñoor kalaame seexi bawool ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ba mooy jabulu dem tuubi ndam di jooy mënaa ko tuubi ruubi Seex Babacar Cargaan Sëriñ Mor Maane Sëriñ Aliou Diouf Lambaay ñi lee daane keroog dale na woo fa Lambaay naa leen dinaa leen tàggale ki la xasaay keroog dale na boole sol ci wurmbal ñi génn kenoo ba jaangay darmbal muy bocci ay gobar di feeñal dammum di boole door ak amatul far jàmm tana baleen seex bamba mbaama rendi murid yépp ma nga naan ba mandi murid yi naa ko bamba nos na ruuyi yow ma alastu faral tey nooni sëriñ ma marmaale ko tontu boobaale ko dañuy kàcc dañuy dem Tuuba Falila la tey tekki sa ndombak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk dag tis penc ma dal di jaxasoo murid ya xaac mbir ma dal di laxasoo murid nyoutu Tuubaa xibaar ko bamba mu xëy ñaanal ko tasna jalba ca doy dem kalaami koog boroom dar, mu naa dëngeen ba che io at la teñ tañoor nar meelu boobee la rey mu semineel mi wandeelu keroog la gàddaay wuti réewum ñooro di fiyakki lam de jul de gaayi leero ba mu demee ba weesu si far ne maalum keroog la fekki bàmba ngir tuubal Seex Bamba naa murid yi ngeen jégal ko ca moomaat lañ ko woom mu dem ndar mu seewalanteer ñëw këram daali koy dar mu dellu ndar tubaaba far nandal ko kaasi posen malaaka far mandal ko mu dellu si bañ keroog la wiji yàlla yaa jaban yéem naa setu maam ca moomaat lañ jenne seex ya tuuba di aaye julli ya aaye tool ba taalub sëriñ ba daldi fay fa tuuba ak mbàkke cey taya kawuteeg booba ñu daldi woo sëriñ ba boole kook sàmba buurub jolof mu daldi ànd ak bàmba keroog ba mu xëye ilaa safar yàlla nga ko booleeg Mustafa ahlul badar keroog la yàlla xaata banteeg bàmba ala lisaani aali wax ko yen ba laayis yam kuru filan faali la yàlla jox jibriilu bilaw haali bàmba ka wax maam ceerno firiwaaya monu ko daa xibaar borom wilaaya na nooni makka ya defoon njool makka la nooni mbàkke yi di def njool lañ xaata alal ijaari la yàlla xaata banteeg bamba filisraari ka yoon woon muhammadul mbakiyu moo fi yabal si ahmadul mbakiyu ka yoon woon muhammadul mbakiyu moo fi dellu si ahmadul mbakiyu bisib kerok la ranya rañaane pajari fajari gaaw ba malabrari labraari dajeeg tubaab ba daldi yendu jeewal fanaan dun ne duñ ko siwal nena na la jëkk gis ahlul badar ba mu xëyee subag dibe lañ ko dar keroog la way asma walul badri بالك مقدمات بوري بن نصري كراغ لي جنگ في القرآن على الأداب جاكنون يداني إن ولي إلى إلاجة لدم فناني بجسال إنجة إن ولي إلى إلاجة لدم فناني بجسال إنجة أياس من الله إن جي ولي إبليس is nadaytuhu bi yaa wali ba mu xëyee ba sandamal waa kokki sandar ma say ràmbal tubaab yey fokki la wax sëriñ baay gi sëriñ maamur faal la yeji yàlla wax ci saaru lan faal ba mu xëyee ba sandamal waa kokki la wax sëriñ baay gi sëriñ maamur faal la yeji yàlla wax يزار الأنفال إذا لقيتم الذين كفروا bulen بولين دلتو جناو فالتصبرون نكروك ngelam bu la mu doon ràmbal jibril yor ku gàmba moom la àndal kana burdu wawa fardu moo doon doxiinu fas wa bambaay fardu nee na keroog ba mu rañaanee ba yendu Luga gisatul waa Mbàkke bur yàlla xaatabante na ak moom laaya isa laqaytumoo bi atan na gaaya keroog la yendu Luga waa réew ma naa ko teenga fetal jaar mu ne banaa ko yàlla ni ina laa teg yu laafiyu ani lesina amano ngir saafiyu ولجلي كرا صلاة الأسر إن سفينة بخير أسري بمسلم بتابي قال جم دار دي داي أبجنت مباير بدر قال جدي داو مسين با فردي سبال سبحانه بامباي بروم ملاخوار سبحان من في البحر والبحر مان أجر الجوار وكل الجمال سبحان من لجاد في السفينة في خدمة لشايب المدينة سبحان من يولج في النار الليل والأسرى في الإسرار كروغ لسيخ بامبا فنان دار جيج دوسي أي جلانيو شبدن لم بامبا جيج هلا نبي وجاتو قبل في الدري ما قد كفاني وذاك الكدري نانا كروك بموي نيوك بروم دار لكو برومم دالي واخ لموي نار فاصبر كما صبروا اولو الاسمي lañ fa xaata bante bambaay mbër ma mu daldi jaari kër amet xuraysin ngir lam càllaloo ca ñoñ xuraysin seex bambaay Juli na fa nyar raka ñaan fa boromam mal njool maka Cheikh Bamba Juli na fa nyar raka ñaan fa boromam ngërëmal njool maka keroog la taalif xasida ak asiiru ca at serin bashiru Kero ba bana xurooru ndawal borom dar woo ko mbër ma muuru yandang yoroon ko ñaanal dappel boroom darab gan am na moole appal xaniitu billaahi anil arbaabi wa bi muhammadi anil asbaabi la bamba wax yandang ba wax ko duudu antar pareet ba mooy boroom tawiidu keroog la bamba ramu duudu sekk mook yaari waajuram yi abul ko sikk sax na fa ndar weeri diggi aw gàmm ba mu xëyee la daldi xëy di koy jalax mu jëm Dakaaru ca alxames ya noon ya dalee waaru bisub keroog la jëkk a feeñal xar baax ngir Moodu Njaay maa beey la woolu cim taax won ko asiiru ne ko yaamay sere damay liggéey leema dellu si jéeri يوم القيامة إرم أهل البر ما تقدم إرم أهل البر تفيق بما يدلسي دوفي فاتون دنا لا فيكا ندلي لا آياتون بسم كراو أكلين كودوغال غاي جيري مجام داكارو بامبانا مجيري علمني رحمن في سفينة بأنني خديمه sil madina fi laylatil jumaati lañ ko tabal ci néeg bu lëndëm noonu yàlla ko làmbal mu làmbu daj fa gobar ak rabbu ñu tej ko foofa dem mu des fa ak rabbu mu daal di jublu xibla dal di kabar nee na keroog man la sujjoon ngir tartar jàng fa saaru bàqara ak imraani jibriilu tijji néeg ba fil quraani am na yaari guddi naanun lu du ci leer yàlla kooka naanun nee na keroog gis na fa maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee keroog gis na fa mu dey kolol dees ko xam billaahi ku li la jël sëriñ moor penda mo fekke won waxtaan wa keroog moog banda njool makana ko xalamal saaba bu tuddaam satali lee xitaaba nee na keroog gis nee na keroog jibrilu mikaayilu kasaaka asraafil asraahilu ñoo nañ fe ngir bëgg alak nasaraani ci xeeti alkanimaani raani شيخ بامبنا توايوا أفوت عنهم لول دين خروا إذا سكرت سالك المبيت وسالك اللمير وسبوتا ترت إلى الجات بالأرماه نفس ولكن سب أن الماء تباب بولكو بولكو سندرما بتد إبرا بنت جينجر ورما mu boole ko soxnaam su tudd aana fay mu di ko toggal yàlla na yàlla ko fay boroom ndaram ndakaaru dali koy woolu bu tudd capitaine su jënoon ko moolu keroog la doon bëgg a jaar ak makka aye ko mu jégal noonu mag naa koy na laa dafiw ani lesina amanu yaa saafiw Seex Bamba la ko asbiyal ilaahu wa ilaaha illallahu lii Bamba mosa wax ma way man mi ay jaloorem bisub keroog lañ ko génne foofa yóbbu feneen fekk gaynde boofa ñu boole ko gaynde ga tëj booba gaynde ga mel ne xar mu gis boroom baa si tuut ñu daali fa yebal sandarma mi xonti gaynde ga mburoog tandarma ba mu ñëwee fekk sëriñ bay julli ñeloor ga waa fa kanamam di muli mu dem xibaar ko kilifak ndakaaru keroog boroom ndar di meer mer na waaru ila nabi wajjatu xabla fi ndakaaru sigren bi xat ko kibal makaaru ila nabi wajjatu fi Ndakaaru sigraan bi xat ku kiibal makaaru ñi daali koy yóbbu ci men mbedd boole koog yëkk wuñ yafal wuy fadde mbedd ma noon ya dañ ko garante bisib keroog ruugala buur garante Seex Bàmba ne ba mu tebee jëm ci moom wutewul ak boroom mi laaf amul yi buum ba ñëwee ba jub ko faf narmeelu xoojane follit fa kanam jibriilu ku weddi lii yaral ji saaw sakoor konte nga xam ni googu góor a mat góor nee doon wali fayanto kon mu alag leen ba xeram ya ganto nde daal yal gayndeem ga mooray noonam ya musalabal firawna xotti yoon waa noon labal bañam yaray noonam yaa seex bàmba ne moo joxoon mbootam ya bisib keroog lañ ko daal di kab la la bey tugal ñu ne kooku mag la niroowul ak sëriñ si daa sànki mboolem rijaal yi moo ci gën dim pànk ñu daldi teeral seeni gaal fa waax ba seex bàmba togloo fa sàmbalaax ba bam sottalee la tabbi wildi marinaaw moo gën a gaaw ci gaal yi mel na ni bisib keroog lañ ko jalax mu wéy géej ñu naa ko lee nga sànku ngir dangaa léej bamba ni leen fu dul fu yàllel nekkul mbaalu wuute loola dalla nekkul ñu dal di koy dugal ci yow ma sabti mu jëm Konaakiri ci ko ay parti keroog la fukk ñaar ci rakke gàmm ramu na jéeri tabi géej gay ram waaxu musaa siri la tabi mbeex ma keroog la mot li asiiru neex ma dalli defar asmaawu ahlul badri si ña samaaw ijajin fil bahri gaay badra ya naa ko doo وإنما الأحمال بنيتي موت لسين كبدوني بدلو من موت نفسي ما ناني جدلو رفقني جبريل سوعي سومي وسائب البراق في اللسوم واجعل مشري مثل عج وجعت في الأجر واليمن وكل في التمات واكتم لي اليوم بجاه العسيم أقعت الأبدي وبتر الرجيم واكتب لي واكتب لي واكتب لي ثواب في كل نفس ونجني من ركوني لكل نجس واكتب لي الأم ثواب وأمرة وليكن والنجي واكتب ثواب الثور والجوار الحمال وليتيب داري واكتب لي الأمانة والصلاة بالانسلاب ربي والفلاح واجعل مكاتبي تقوم أبدا مقام آج وجهاد للأدى وجلوك الهجهاد وسلوك وردي جملة الملوك وجعلوا كالهاجي وكالجوار ونجني بي من البواري وجعل منامي كالقيام جرى والتقي لي دنيا واخرى مكرا وجا الفتوري بمثل سيام والتقني بانتفاء بأرام واجعل مماري شاعرا وباتنا لتيبا عبدا سكورا خاتنا إلى بيت لدام وخون في البهر amuy defar asma ahlul badri ma tax ma galbi bi sub jihar nga aj umra am nga yool ba wajatan liman bidufin irtada wa ujatan ala muxaalifin xaada la daan jamad labul matlabul lola ya waral magal gadona maini. déglul ma netti la yooni géej ge njegam yëroo bamba géej keroog la doyloo yàlla fekke Mustafa ñu may ko yoolub dem marwataak safa njool makka may ko saaba ibla bamba jublu muy kaaba rasaxtani aja ilahi wa sawra wal jawaara fika ayya كروغ لا بام يبلو قران ليمان والاسلام والاحسان سلي بالي نور لسان والكتاب اسمع خدمه لدى اهل الكتاب سلي بالي لسرار بالمنافي وقت جهادي بلا مدافي كروغ لا تدو خادم رسولي خليفة رسولي في الوصول من سألني خير خديم المصطفى فإنني أقديم بما اصطفى من زع كوني قديم المصطفى فإنني أقديم كما اصطفى من يلقني في البهر روم خربتي فساعدني من الإله خربتي كما مقامم ibrahima fil bari ma yomba lajal na réew ma keroog la gaal gay daw ba wàllu tisi baar muy jàpp amadam bu sew daal li fay jaar dikk taxaw fa kanamam daal di koy laal bamba fasaat njàpp ma daal di am aal ba muy masa madam ba del si laal ko nee tuuti kon mu tàkk far baal ko gaay badre ñoo ko booleeg dar ba lal ko ca ma te demul ba seex bamba jàpp dal di julli tisbaar badar maamu mi lee day waar keroog la bamba mosa feeñal xar baax lu baax du baax ba weesu baax bamba baax monu ko daa xibaar te dun ko duural ku yebu gëm ku yebu weddi buural tuuba liman amana ahlullahi waylun liman ankaroom bilaayi keroog la bambarom wa indaloos machine baru le na balbe su mandaloos abdullah capitaine bala moo koy teeru ba woon ca angale di lakki tuuru yor yor la gaal gay te di jëm konaakiri bisub di beer ca giri giri ca takkusaan la gaal daali koste dun buñ naan tabook maroon yayi konte keroog la bamba jëkk a gis kurmaana ak timine kurbooy ñu ne wi maana mu jàll romb agaraak waa Cameroun saa sandar lay wàcce gaal waxtu la fay liit mu deqi ilaa Conakry tubaab yay soqi mi di la gaal gay teeri fi Grand-Bassam mi di la gaal gay teeri fi Grand-Bassam juróomi fan lay am ilaa kab la bisa foofee daam wàcc fanaan bi sarwali post lëndëm la sore na ak baafali mu delloo war ca gaal ga jaari loome jaar asme jaar kutunu jem dawme babat seetee seex bàmba xëy jëm daw me romb legoo kaw tubaabey armée fii la faranse yam ci woo waxtu seex bàmba wéyte musa tiimal waxtu malakanil maaliku inda daawu mi maaxat kafaane udaa tasaawu mi keroog la bàmba tabigeeyu kongo kabla bi saalay wàcc neema gongo ila nabi wa jëtu في كبل بسام ما خد كفاني أداوان بسام تبابي أنا يلا يكبنجي ñawna mu mel ni gaynde si bi gog dangang na i taxtil taxtil mu taxaw si waaxu te taxti koo taxaw lu wey la baaxo commandant ak alkaati yey commandé xamewu leen ku wax mu teg ca Sandal rek sandal masak soldaaru ñépp ko daara amal ni gay daru ni fap ko jebal ko kero governor muné ko déplacer nañ ma bu fi kero la bamba ya salat wajatu lillahi amdan magna khataltu baba sete ya ko tubaaba koy dugal sagar ni bun ko wolu juróomi weer laa dese tey ci réew mi nde kon dinaa la yor nde mag nga yow mi ceex bamba naa ko yàlla mooy saa wéttal muhammad rasulullahi mooy saa wattal rafiquna ona kitaabullahi wal mustafa wal mustafa wal mustafa la bamba wax bilaayi waaye dinaa la boole commandant boo xam ni nit ku ñuul la def na yandang duut ma mbay la tudde koon nang ce maa yomba nu sunu gal ñu daldi wàcce Bamba wil mari naaw mu jàll ko ngi bel si Bamba mën a naaw Cheikh Bamba dellu tabi fi safina gaal ga ñu naa ko la Gabon sorina la Bamba yees keroog la Bamba wàcc keroog la bamba ila nabi wa jotu fi safina xablu sana yax la madina gaal gaa nga jam ba wey bu naama koste fa waaxu mata dig bu han sallal ti daaw nabil atadi jumlata ma laqaytoo nawa matadi keroog la xus ca ma romb booma jàll ca konga bel si mel na njuuma kongo faranseek luwaa ngaak bu waar romb na leen bu yàgg moo doy waar weesu baraase wi la kabinda ñu naa ko yow nga am kabind keroog la daam jàll ba dem yomba weesu banaana ak bu ma bisib keroog la wàcc postu li di maa gis ya duudu yor di leen duma foofee la fekk kuñ naa baleesa mana ko ay balese, am iblisa mana ko may balese. abdu waañ dina la dimbali sa jaamu waañ balese baleese mi yobulu di ma kar kër kumandang ba di leen teri du ma bamba xandi ànd ak ma seen waa gaal gannaan ba mandi jox ko fa pilim yu andak lankar i bamba du sankar lii tax mu wat carte ya ama bal sesi dafa al bamba ama jey sesi kero la cheikh bamba cheikh dudu ma mbay dudu ngana naa ka bamba bay du sóoru boy cheikh bamba na ko ndaw du bal am saman legu mu ko buusu du sigue jey sawan dudu ngana ka bamba yo ya dim pank waye serigne si sépp ma len sank mu ndaw du sooru maasam baayam càkkaantuma ka war maaseeg maamam du ma mbay dal ni kaamil ba téere ba seex bamba yoroon kamaal ba wi ko dal ca bisirul munaafixiina ba ca mujug laay ja xar kanam ba xiin bàjo bara delloo sëriñ ba téere ba keroog la xam ni bamba am na martaba keroog la bamba dellu bi téere ba di seet mbirum du mu mbay ak ba dal ca walan yëj albil ca seex bamba jàng ba weesu muminiin keroog la yàlla atte seen diggante ca alxuraan yàlla reyub lijjanti dud mu mbay dal di tasaare téere ya di sànni taalif ya di xotti yére ya i léeg-léeg mu wool ko di boole gardien ya ak prison yaag madame yaa gardien ya yi saamu naa ko tey nga suuxa dar bi yi saamu naa ko tey nga suuxa dar bi di sanni lal ba mbaa mu lalli der ba wala mu naa ko yaa ko yaa perdi wala mu ñëw naa ko comment mbaa merde mos naa dikkal sëriñ bi sotti kom ndox mu def sobeek sàngara buus kom tox keroog la bamba woolu siidi maaboo ni ko wutal ma ndox mu sel ak saabu mooy tukulóor ba daa commandé poste ba bamba taxoon ba fatul ci peste ba moo ko fa daa rootal di duy ay satalam di dox ay soxlam di joxante salam du mbay bamba ngir bon nga ak ñaan nga fi ma yomba mang naa ko dee ko saru bis bu nek ak satalam ne xif di mar bu mu lek sidengana ko ti yàppaloñ ma fayati si sama weer moom laa ka faf di joxati keroog la duudi mere siidi maabo daldi koy foto fetal mu moy badal bu waabo keroog la duudi mere siidi maabo daldi koy fetal mu moy badal bu waabo ñaan dem layo yi kër gouverneur ñu daldi koy licencié njol ma daldi perdi ca mooma at la ga ja def commandant banum def mu tollu dekk dang dang cheikh Bamba faaf di yoni Sidi mabo mu dal di faaf de baabo cheikh Bamba dal di wey ma yomba war yow mana bulen fi indi Bamba yàllay gabon jangi ko wax mu ray la mbaat ñu sankela na ngeen xamni yilla looloo taxoon seex bamba amma yomba juróomi at ba fa fi yabal samba bisub talaata la fanaan maa yomba labee naa ko yaadi seex bamba seex bamba julil na fa ñaaru rakka jaayante fa xayrul wara njool makka bi bayaatoo fil tata sajara wal bahru musbidun wa awli fajara ñu fab ko yóbbu dunu maa mook Samba Lawbe Njaay si booru Bamba àll bu landam tudd il di burki bari xeram lool njuma yaa ngay surki fafe la coyey yuuxu di wax di xaacu làkki faranse sibtu ay saak saajo ñu san leen ci doj wu tudd wiir wiir samba di weer weer yi bay sa veer Cheikh Bamba julli na fa ñaar rakka ñaan faridan wa rahmatan wa baraka nee na keroog jàmmante na badar ñu saafonte ci rakka gawar nee na keroog ànd ñu jibrilu mu war ca kaway soomu tey jëmbeelu nee na tuuti badar je dekki waaye borom garaad ya moo ka tekki ba mu salmale ne sàmbalaw bi gëmal xar baaxa man xerem yi dañ lay jommal si ñu dellu si mu naa ko xoolal xar baaxa man xerem bu leen ma feeñal ñu dellu leen dugal saxaar ca yoor yoor bisub dibeer ñu jàll romb wiir wiir ñu boole leen ñoon ñaar ca digg bal ba ñu ne fa cundum faf ca digg dun ba kero la xerem ya seer di yuuxu gine ya bokk xaacu bambay seexu bisib keroog la bamba xutbu géej ga yaa baxru waaye laatu sallit géej ngir ñoom dañuy wax ak lu yàlla jàngal wa in min say in tebul ko sikk kun sa atirabil musbidun mbul duusu lu ragal yàlla mi tax ngay buusu waas at ba an abdoo rabba sëriñ budul man muslaja la rabba ñi nga fi daa dañ da moy yalla man musma moy yalla setalila la musbi ñew ngir ligeyal mustafa kenn mos julli fajar mbaa muy safa kon damay top ndigal toppal ndigal ta baña far xeram yi bul top ndugal keroog la géej ga du bawan labee naa ko bamba yaa di ndaanaan kero la jinee ne woon maayomba jëbulu bamba delloo samba bi ataxal la siina aslamoo jinni asrin doona man lam yaslamu jaja yorong na ba yorog dongoom ya kakkun na